loolu noo ko jàngatee. xam naa si def la daal. waaw ñu mu ture kàkkatar la. Hmm? waaw mun na changer heure bu ne. bu nga joxee assemblée nationale président. Hmm. bu fa amee majorité mun na daanee nguur gi. Hmm? maa la ko wax. mais nan parti bi mun a gagné jox ko mu dem am majorité. yooyu la a waral lool nan nan la a nekkee dañ bëgg nga jàngatal ñu ko. ñu xam jàngatal ko. Mimi Touré moom mu dëgg yàlla. ñi ma gis mu doon ànd ak ñëpp bàyyi na ñu ma xam ñoo xam ne daal nañ jëflanteeg moom gëm ko lool li ma xam daal mooy. man de du ko teg assemblée nationale di ko tey. ñii de gëm nañ ko. ah dañ ko jël di toog fii laa lay mu yëngal mu yëngal nguur gi. di nga toog fi laa wax mu yëngal nguur gi loolu koy jarul wax bu amee ni day ni fartal ay ni si majorité ñu ànd ak moom assemblée nationale mhm. mën na yëngal nguur gi kon li ngeen kon li ngeen lu hmm? li ngeen lu nekkee loolu du arrangé ko ñaari guy ñaari kuy mhm. xajuñ si mbànk mais xoolal bi rek fu mu toogee di wane ne kii te ministre ñun am nañ ministre affaires étrangères bu normal bu liggéey maa ngi koy félicité ak discours président discours bu rëy bi mu fa def. est-ce que moom lu muy lu muy moo tax muy jël yenn yi. parce que ñi dañuy doog a ñëw. seen xam-xam tolloogul foofu mu jël ko jiite ko pour mu wax. ma ne ban jiiteel ban jiiteel ministre affaires étrangères. Mhm. Nations Unies moom la ñuy reconnaître moom la ñu xam. réunion affaires étrangères mooy dem. Mhm. réunion yu am yëpp mooy dem MOA fépp mooy dem. Mhm. kon daal ci biir wax da nga bëgg wax ni Mimi dafa bëgg a ñëw foqati li nga xam ne waaw mooy li xale yor. waaw loolu la bëgg. Saliou ban question nga ci am loolu. Euh, ñëw Macky naka la ko nar a gisee euh, par rapport ak euh, moo war a jàkkaarloo ak Ousmane war a jàkkaarloo aussi Barthélemy Diaz. ak Amadou Ba. ak moom Barthélemy Diaz ñoo bokk ñooy ànd non. ñooy ànd àndum intérêt ah, moom leen laal lay politique lépp intérêt la. Hmm? politique lépp intérêt la. parce que ñoom xam nañ ne. ñi fi ne. Mhm. jël nañ nguur gi ñoom dootu ñu ko laalati léegi dañuy jéem a bokk pour gagner législative yi. pour gouverner. loolu rek ku si nekk boo demee sa wet dem ñii ñooy ëppale ñu ne nañ def booloo seen intérêt rek tax ñu ànd du leneen de. mais tey opposition bi soo amoon majorité parlementaire loolu mënul ak ak dëkk bi nu mu taxawee nii est-ce que du ci dëkk bi du gën a bloqué. lu koy bloqué. bu boobaa lu lu lu lu lu lu gouvernement bi dugal mun nañ ko rejeter. man gouvernement moo fi nekkaat gouvernement bi dañ koy tas gouvernement bi fi ne ñoom bu ñu jëlee <laughs> assemblée nationale dañuy tas gouvernement bi. kon motion de censure bi day ñëwaat. non du motion de censure premier ministre si ñoom lay jógee. yaa uh-huh. ñoom ñooy def premier ministre. mais ñiy toog ñoom ñoo waxoon ci seeni discours avant ñuy toog. Ah. que ni dëkk. bu ñu buggee mu dox. waaw ah. opposition bi dafay am majorité li nga xam ne mooy assemblée yow tey loolu ñu mën a ñëwaatal ci loolu. Ah, moo tax nag xam nga wax léeg-léeg dina dem ba ba tourné si yow wax boobu ñuy doon wax ñoom ñoom nga koy laaj yéen a doon wax ne bu ko jël réew bu ko jox assemblée national laaj leen ko ba xam ñoom lañ leen wax. parce que nee nañ euh, état euh, état bu yore majorité yëpp yor lépp. day day métti ci ci ci nga xam ñooy askan bi. léegi nag yow ñoom ñoo ko waxoon laaj leen ko. ñoom nee bu leen ko joxee ñoom ñëpp ñu doxalaat ko ba mu leer naññ. Ah, de ma ne ne laaj leen ko. ñoom ñoo waxaat yow loolu jàngat boobu loolu ñu ci mën a wax. mën ma si wax dara ñoom ñoo leen seen wax boobu. mais law du daan ko su tollaan fii dañ ko daan gis. mu ànd ak kenn soutenir te moom xam nañ ne moom gaynde la moom amul moom day laam-laame day génn moom dëggal boppam waneel boppam mais ci législative yi dégguñ ko fenn. parce que Mame Mbaye Niang moo ci nekkul moo tax te mooy xaritam ñooy ànd di politique. déedéet du sama xarit de. ah yéen a doon ànd di politique boo koy mhm. euh, euh, locales yi. Mhm. man Mame Mbaye ko xam. Mhm. sama benn frère. moo ma ko pré moo ko woo moo ma ñu ànd man mosuma xam Mame Mbaye mosuma ko sax jox loxo. ñu ànd si local yi local yi bu mu jeexee gisatu ma hmm? waaw léegi woo sa téléphone woo ko koo woo ñaari yoon jëlu la wala bu la wooyee mu ne naa la rappelé nooy def da nga koy waxaat man ku ma woo ñaari yoon jëloo wala nga ne naa la rappelé dootuma la woo supprimer naa sa numéro léegi la moo tax nit ñi ta bëgg la bëgg la taxal ci moom bu ñu waxee la ñu yow yaay défendre ki nga xam ne mooy Mame Mbaye Niang. défendre moom mosuma ko défendre. kon li ngeen ànd ci local yi li ngeen moo tax mhm. moom wax na ma kàddoom ne ma. waaw man maay nekk. Mhm. am nañ benn conseil municipal. Mhm. ville de Dakar. mu ne ma damay démissionné nga jàll. parce que vraiment bu démissionné woon tey man maay jàll. mais démissionné ba nii nii te Barthélémy Dias dàq ko parce que ba léegi demul conseil du dem conseil euh, kii conseil municipal conseil municipal waaw. fii am na ñu bari ay conseil municipal la mais duñ dem ville de Dakar te texte bi da ne boo demuloo ñetti yoon waxoo lu tax ñëwuloo nañ la nañ la war a dàq te kenn dàqule ni nga àndandoo moom lu tax bi mu nee ba yow àndatoo leen génnoo fenn wax ni àndatuma ak ñoom. parce que sénégalais dañuy yaakaar mais nit ñi dañ nit ñi nit ñi ñi ngi jàpp nit ñi ni ma lu tax ba muy dem tribunal. ànduma moom. ndox nit ñi laajul man nit ñi xam ne ni yow lébu nga sa deret dafa xaw a tàng mën nga fa dem xeex loolu moo tax lu tax nit ñi laajuñu ma ba di yegg rek yegg rek Sonko ànd ju ànd ma si daw ma fa de kenn gisuma fekkoon tey maa ngi ànd ak moom ba muy dem xeexi damay ànd ak moom xeex ak moom daw ma man mbay gëj naa ko gis ba ñuy paree élection laa ko gis gëj numéro aw bu léegi nii ba ma laa yoon numéro am du la ko jënd aw ma wallaahi azim man bu la bàyyee damay effacer lépp. intercoalition bi bi ñu def nii dina arranger nguur bi wala du ko arranger. non sa léegi kenn xamu ko si dara te élection yi jeexul. waaw mais yéen ñi nga xam ne yaa ngi ngeen fekk élection xam nga benn affaire. Mhm. présidentielle yi passé. Mhm. ñi doon wax xam nañ politique yëpp dañ ñëpp daanu. dëgg la am na wala amul. dëgg <laughs>